sa bopp bu rëy manga waaw bu arbitre sifflé nga xam ne paa ak a téye boobu manga sa reen yàqu kuy lekk xar ak kuy lekk mbaabu xuux bu noo yem del wax rek doo tërëm tapet nga day ñeme lu tepeeku bàyyi maccu tuñ bi day yeeye nga xam ne lépp gónga la day bandi bandi lu naan bandi laa Grand doo dara waaye Medina bu leen fekkee instant sax dañ leen di génne. tapet ga doo waga ñun dëkk ba lañ jógee. le 27 février ak rent DKR ca stadium Iba Marjo, Diop Mbaye Gouy Gui ak Zarko ak ay combat préliminaire yu neex Yankaw Junior dina fa jàkkaarloo ak Tidiane Faye numéro 2 Papkan numéro 2 dina fa jàkkaarloo ak Pokola Balde Niagas numéro 2 dina fa jàkkaarloo ak Thiatou Walo Tegjël dina fa jàkkaarloo ak Plom Junior Param 2 dina fa jàkkaarloo ak Bébé Garga Pouy 2 dina fa jàkkaarloo ak Boy Silla Ramdam Junior ak Caatu Réseau Bébé Saloum 3 dina fa jàkkaarloo ak fils de Serigne Ndiaye Sa Thiès dina fa jàkkaarloo ak Aliou lamb ji en direct lay doon pay ci seen affiche point com. amuñu lu ñuy tàppet lii. naa la duma dinaa la daal gën a liggéey gën a sonn yàlla naa la yàlla may ndam ci barke alxuraan ku gën a neex am nga xew de njaago bi nga cab Gueye ngay arrière Mbaye Gouye Gui arrière na ba génn saako yi Mbaye Gouye Gui arrière na ba génn saako yi Zarko nga naan tey leen rek eh Zarko nga naan tey leen rek arbitre bi soufflé waat na arbitre bi soufflé waat na diggante Zarko ak mbay Gouye Gui diggante Zarko ak Mbaye Gouye Gui. moo ñu wan ginnaaw Zarko moo ñu wan kanam Zarko ngay déplacer wu yuug na jugat mom Zarko dóor na ko dóor ko kuubu dal Zarko dóor na kuubu dal yuug na jugaat Zarko ngi dugg ci rotan sant bay guuy gi Zarko ngi dugg ci rotan central bay guuy gi bay guuy gi tontu na ko daan na ko daan na ko Zarko daan na Zarko daan na ko Zarko daan na mbay guy gi Zarko daan na mbay guy gi mbay guy gi daa songu aveuglement Zarko daan na mbay guy gi Zarko daan na mbay guy gi waxoon naa ko mbay guy gi ne woon naa ko Zarko boo ko bëggee daan da nga koy jox cër ba pare ñime ko gis nga ko Zarko da ko wërtal door ko kuubu dal mbay guy gi kuul bi mu jël ci làmb ji moo yàq làmbam mbay guy gi kuul bi mu jël moo yàq làmbam waaye nag il n'est pas démérité ndax xale la boo xam ne mu ngi ci yoon. xale la bu nekk ci yoon moom Mbaye Gouy Gui ñu ngi koy wax ñu ngi koy ñu ngi koy encouragé di ko wax di courage di félicité Zarko